jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñoo ngi fii ci Wassare Lamb ñoo ngi fii ci Géejawaay seet si ki nga xamante nii mooy Niang bu Ndaw euh, balaa ma ciy xuus rek parce que man mii sax loolu xaw na ma jaaxal dama koy bàyyi mu nuyoo ñu laaj ko lan moo waral Niang bu Ndaw bi ak moom mooy kan ñu doog a welu waxtaan wi Niang nuyu naa la. maa lay fay waa Wassare TV di bëggee bu baax di jox seen wàccuwaay euh, di nuyu sama sëriñ suma lépp maam Coor na borom daaru nuyu waa Sikori bu baax a baax. nii nga ma fekk ni waa mbaar bi waa Gunaas sama quartier sama koñ di bëggee waa Sénégal yëpp di la ñaanal jàmm bu baax di la ñaanal jàmm si yow. li ngay def nii xam nga ne teguloo ko fenn balaa balaa balaa ñuy commencé xam nga ñuy commencé muy lekk màdd mënoo bàyyi bañ pare euh, balaa ñuy commencé lan moo waraloon ñaabu ndaw bi. waa ñaabu ndaw nit ñi ko tuddee booy ñoom tuddee gars yi xam nga sama terrain ak ñaar rek tuddee ma ko mais boo ma bëri mbabat temps booy maa ngi tuddoon géré xam nga dama ku dem ba màgg ñu am ay terrain ni ñu ni tuddee moo ko ba dem ba xam ne ni suñu borom moo ko def moo tur boobu rek te yaakaar naa Boy su ma ko njëkkoon a siiw sax man la man la tuddee boppam. boo njëkkoon a siiw Boy Niang Boy Niang yow la tuddee boppam. parce que mbiru suñu borom la ko waa nekkul loo xamante ne nii lu ma forcer la wala lu ma xëcc la yàlla moo ko def waaw mënu ma si dara. mais dañ dañoo dañoo gis ku la gis ku nekk xelam day dem ci Boy Niang. Mhm. ba ci bàkko bi. ci solin bi yi ngay takk yi maanaam yi muy def yëpp daal dafa mel ni daal dañoo copie coller lay nekk <laughs> loolu lan la parce que nduroo nduroo day am mais mu bu la neexoon nga nduroo ak Lac de Guiers bu la neexoon nga nduroo ak Alioune Seye bu la neexoon nga nduroo ak keneen ak keneen ak keneen mais dañoo gis lépp loo xam te ne boo ñaata koy def rek ñaa bu ndaw moo ngi ci tànk yooyu waaw man bind ma sama bopp nag yàlla moom bind def ma nduróog boo ñaa xam nga ni ku nekk boo sàkk sa bopp doo juum mm-hmm. xam nga mu nekk sama idole ma koy roy itam man tam dama koy roy itam ci lu bëri ndax parce que am na loo xamante ni su ko yàlla defee ci yow rek da nga koy def xam ne loolu mbiru suñu borom la nekkul loo xamante ni maa ko ñëw di xëcc ma forcé ko xam loolu mbiru yàlla suñu borom la quoi suñu borom moo ko def. man tam ma ko rëy ci lu bëri quoi ci doxin beeg solin yu bëri. ok loolu doo geste mais lan moo la gën neex ci moom lan moo la gën a neex ci Boy Niang. bëgg entraînement fulaak fay rek kese waaw loolu ma koy rëy si moom bu baax a baax a baax parce que ni ko lu muy def la quoi. ok mais kañ nga dugg si ci làmb. làmb maa ngi si dugg euh, le 5 mars jour combat Gouye Gui Boy Niang la xaw laa bëri sama premier combat ma daanu. nga daanu. waaw. le premier combat nga dugg si daanu. waa gaa yi ñoom yóbbu ñoom xaaf ñoom jibi ñoom yuusu gars yi ñoom Ablaye. kan moo la bu Faas. Boy John bu Faas. waaw moom la daan. boobaa ak léegi ñaata combat nga def. bëri waat naa fi trois combats yëpp maa daan. premier combat nga ñëw ci làmb daanu lan la la def. waa diisoon na toog na parce que boobu sama premier combat la woon mu nekkoon démb jóg xam nga mu nekk bis bu rëy ma ñëw nekk xale ñàkk expérience si biir géew bi boo doon jàngal mu bëre dem te léegi maa ngi dégg ñaan moom sax bàyyi na bëre te moom moo moo amee sama revanche te moo war a fay dafa war a fay sama bor. yow mu daan la yàggul nga bëgg a fayeeku fi ay bor. teelul loolu def na trois ans ak léegi boobu ñaaw ndaw xale la woon mais léegi ñaar dafa màgg def jar am cas. <laughs> mais mais mais waana gi nekk ci yow waana gi nekk ci yow lan parce que dañoo gis dañoo gis ñaaw buy tuus combat bu mag waa géej waay yëpp dañuy génn ñoo ànd ak moom gunge ko sa diggante yow ak ñoom lan la. waaw waa géej waay flag rek laa leen wan mosuñu ma gis lu ñàkk fay la wala luñ may xeebee wala ñaaw moo fi def li wala ñaaw moo fi wax lii entrement lañ ma xamee. lekk tëdd wax dëgg fa yàlla ku ma waxal leen lu lool rek xamal ay waxu sos la dara. dañoo gis ko nga mobiliser stade bi du stade bi ba mu fees nga ñëw tuus ñu mel ni yaay bëre grand waaw li ma la wax rek gars fu laaj ferewul laa ne su ma jugee rek ñëpp jóg xam nga su ma jugee gars yëpp dañuy jóg su ma ñëwee combat ñëpp ciy sonn ma ñëw tuus tuus bu jaar yoon ñëw jël bëre bu teg ko ci yoon mbooloo nekk sama ginnaaw lépp lu may lépp lu may def si làmb a nekk loo xamante ni lu leer nañ lay nekk. moo tax ma ñëw ànd ak daal teg lépp ci yoon def fulla ak fayda suñu borom sutura may ma ndam. mais mais mais sa diggante yow ak sa adversaire ki doon bëri mu tudd sax. R5. sa diggante yow ak moom dégg naa combat bi nekkoon na combat boo xamante ni metti woon trop ci taxawal beeg fi ngeen ni taseeg amoon na ay écho yu ma ci déggoon lan la sa diggante yow ak moom. non pourtant man ak moom non adversaire ju ma njëkkoon a jox yooyu ñoo yàqu mais moom moo ñëw xam nga ñu ne adversaire de parce que moom boo xoolee sax moom moo ma moo ma moo ma sut ci taille quoi. ok xam nga mu ñëw mu nekk adversaire de taille combat bi nekk ci combat jànq ñu ñëw bëre. te mu ñu gis la ba Habib Sifle nanguloo taxaw da ngay bi léewtoo dagg léwaatoo bi da nga ko da nga ko da nga ko xamul woon wala bi nga doon lii. non xam naa ko mais man mbër mbër mbër bu lekk sama avance ak saa yu ma ñëwee rek leneen laay bëree man lu ma bëree du ma ko bëree waat ku may xaar ci dara da ngay nax sa bopp ndax sama combat bi ma bëree ne la la pass maa li bi dooru pass damaa ñëw jàpp ko imposer ko bëreeg moom jaay ko doole daan ko. ok nga léegi su ma ñëwaatee dama ñëw indiwaat leneen moo tax ma ñëw léew tee sama bopp yàq bëre bi day tas yaakaaram moom dafa foog ne dama ñëw sonk mu mbas ma ma ñëw suur tànk léetoo benn ñaar te beneen combat bu ñëwaatee tam leneen laay bëriwaat kenn du ma xaar ci dara du ma fa fekk. mais est-ce que bu ndaw mbapat na. bu baax. parce que ñu ci bari dañ lay gis nii rek Ndour naag Boy Niang est-ce que mën na ba ñu ci bëri dañuy laajte mais est-ce que Niang ndaw mbapat na. non mbapatu mbapatu àll yi mbapatu koñ rek mbapat mbapatu gunaas mais dama bëree am. instant yii ngi samay 23 yooyu rek 23 ans. bu ndaw xale nga booy bi nga toogal nii xaaf. ak seen naam xam ne nii ñoo sama mag ñii su ma bëggee bëri ginnaaw yoon ci ñoom la ay ay xam nga dund ñoom Papa Boy Djiné yi man boobu ndaw laa si gars yi xam nga maa ngi seen nekk seen rek nekk seen ginnaaw li ma digal ma def li ma tere ma bàyyi. ok mais keroog dama gis ko combat bi euh, man bi maa ngi toog ci kaw bi mais bu ma lay gis damay gis Boy Niang parce que bu fu fu fu sa waay léewtoowee nga dagg léewaatoo bi di mel ni ku ko man daal keroog dama ne Boy Niang lañ andi teg ko mais ñaa ñaa ñaa ñaa affaire bi lan la sa diggante yow ak moom sa diggante yow ak Boy Niang lan la da nga koy da nga koy ba ci biir lewaatoo bi sax ni Boy Niang di bëree noonu ngay bëree. waaw nee naa loolu suñu moo ko def koo xamante ni da ngay nduroo ba nduroo ay jànqatu bañu suuf nga xamante ni loolu mbiru suñu borom la quoi. Mhm. nekkul maanaam nekkul man maa ñoddu loolu carrément mais tam dama ko rafetlu benn côté bi mais yàlla moom moo dogal ñu nduroo bind nduroo tànk nduroo lépp ci taxawaay xam nga dem ba nduroo bëree yàlla la quoi xam nga loolu rek ma ñëw wane sama boobu bëri man ma damay bëri damaa mën bëri samay combat ku ko saa xam ne maa mën a bëri damay bëri lu leer nekkul ne damay bëri bëreem quoi mais dafa am làmm fu muy laaj da ngay dal combat bi passe bi ñu si mbooloo dafa bëri noonu la laa mën a bëri. Hmm. yow si yow yow sax boo ma indiwoon sax maanaam ma teel. Hmm. parce que mën ma ñëw duy stade ba mu fees del di para para yàq sama làmm. ci ay hmm. erreur dama nekk ci yoon loolu la rek. mais boobaak léegi ñu gis la nga jógee ci victoire euh, ñoo ngi lay woo di la wax combat. ñu may woo di wax combat waaw ñu may wax sa combat ak 2Ziga 2Ziga dafa war a ñëw ñu bëree bàyyi affaire tàppet yi muy def nii ragal la tàppet la moom mu jóge si defet man ma jóge si yow trois victoire ñu koy jox suñu mbaam rek moom muy ruux. ba lu mu jógee ci defet tax koo jël. non non a bañ bi. mu ngi koy dox presse mu ngi koy dox. ñaa ñaa baal boo bëggee léegi léegi yow nga woo presse léegi léegi yow daf ko mel ni yow mu wax. combat bi mi ngi koy dox moom la yàqoo. na ñoom ñu bëri moo gën mu bàyyi wiiri wiiri bi su su ma jëlul léegi itam day gën a métti ci mais man mais man jël naa 2 giga 2 giga nee na nee na nee na moom bañul kenn saa boo paree ngeen ñëw ngeen bëri. day sóob 2 da ngay sóob jël combat bi ñëw ñu bi jël ko nga ñëw ñu yow man yow combat jànq la. 2 giga ñaar da ngeen xaw a tolloo taay sax. noonu la demee nag moo ma sut sax. moo la mais yaa ëpp de. non ëpp yooyu sax <laughs> du ëpp moom moom a jël su fuuf. 2 Giga boo ma koy seetaan si làmb man boobu aw ma licence war na borom daaru. mais lan moo la lan moo la gën neex à que tax nga gën a bëgg dugg ci làmb. waaw làmb dama ko fooyee nag dama ko fooyee dip bëre dip xale ñoom matal ñi seen téere yi daan takk maa ngi doon ñëwal. ñoom dund gars yi dip booy laa ko fooyee nekkul dama màgg rek bëre. ok ko bokkuma gars yi màgg rek gis làmb nii rek gis ay vidéo caméra rek bëre man damaa judd ci milieu bii nii juddoo si banlieue bi fii fii nga gis ni fii ni nga gis nii dafa doon baas ay mbapat fii nii fi nga gis nii nii. parce mhm. que ba taay mboot bu ne am na fi. ma judd fekk samay mag di bëre xam ma may ànd ak ñoom nekk xale di xam nga tam déggal leen jox leen cër. Macha dund papa boo junne maaji maaji li ma wax ma def li ma tere ma ci yoon bi mu war a tegu. yee ba nii ma nekk booy moo tax lépp lu ma yootu rek day nooy nag parce que dama déggal sama ay mag. waaw loolu la demee. mais fi mu toll nii bu dul deux jours kan nga ma mën a wax sa diggante yow ak moom combat. yow. Euh, Ada Fass Ada Fass ku si daan mën nañ bëre moo kankang boo yëmbal a ah, ku si daan mën nañ bëre mais yéen combat yi ñuy coow yëpp yooyu du combat man foofu laa bokk. yan la ñuy coow du yul combat waaw waaw xam nga combat yu gars yi coow si mbedd di ma yooyu du combat man fa laa bokk ay Ada Fass ak. boo yëngal da nga commencé taamu fi tol ni fi nga taamu mais dama la fu ma bokk. ndam nag daa neex de ndam. <laughs> waaye ndam da ngay fuuy. question dama ko neex mais yow si wax nga dëgg yow lu ma la loolu looloo am sax man man bokk mu fi mën nekk nii. sa diggante ak moo kankang moom làmb ko daax. waa moo kankang xam nga man moom tam làmb la boo yëmbal man moom làmb la ku si daanu ku si daanu yëpp ñooñu samay adversaire mais booy coomo coomo yooyu du doo bëre ñoom de. doo bëre ñoom daa mel ni. non ah. <laughs> mais mais mais ci wàllu entraînement bi naka nga koy naka nga koy naka ngay entraîné. Oh, man moom deux séances laay def rek su ma yow dem saa nga ma dem. def tax nga am contact wala ma dem physique deux séances lay entraîné depuis ma commencé entraînement ba léegi deux séances laay def. lamb lamb lamb lamb yi nga jot a bëre ban moo la ci gën a neex. maa ngi dooru passé. du tax mu gën laa neex. damaa wuree joxe ma joxe ba keroog jël di am ndax combat bi passé neex na nam li neex na mais damaa jàpp rek daan. dafa yomb. non yombul. ñetti kele laa ko def yombul de. yaa eh, ñetti kele man ma yaakaar da nga jàpp laa ko def R5 ndaanaan la de. dama ko dóor góos muy xalaat mu jël tànk bi muy jàpp ma gitaar muy jéem a tuur ma dugal sama loxo bu ci ginnaaw muy tuur ma sama sama loxo bi mu ko nii laa ko sànni waale. combat bi yombul de mais boo xoolul bu baax doo ko gis boo xamul bëre bu soo amul ndoxtu bëre doo gis loolu mais sama combat maa ngi bu dóor parce que dañoo bëre ma jël tànk bi ma jël ci suuf mu buslu ma ma raam ma xëcc ko di ko tegal siis muy daw ma indi ko mu mu def a jàkkandal mën na ko plaqué bu jaaxaan loolu dafa fees. moo ngi tuuru kat loolu dama daa ba tuuru la yaa sama xajam la loolu. <laughs> kenn du ko lekk. <laughs> yaa sama xajam. da nga koy lekk da nga koy war a. xanaa yow. da nga war a kay <laughs> man de lekk xam naa ne daa da nga war a. mais mais mais mais mais bu jugee ci loolu bu jugee ci loolu carrière bi lan la laaj pour mu mën a jëm kanam ndax gis naa xale yi ni ñu la toppee gis naa waa Guédiawaye ni ñu la bëggee waa tax na foo jugee fu ne ñaa bu ndaw nga jóg ñëpp dañuy jóg ànd ko bu carrière bu jëm kanam est-ce que xam nga lan lan lan moo la war. carrière bu mu jëm kanam lan moo koy maye doon bàyyi daaru wàccee sa bopp xam nga succès bi ñëw nga def succès bi doog suuf doon taalibe parce que fi Sëriñ Tuubaa mooy esaar parce que maam Cerno Boroom Daara moom rek a doon boo ñëwee wàccee boppam xam nga doon koo xamante ni ko ngay doon ko waa xam nga jox ñëpp cër continuer say entrement ba dugg si ay détails kenn bañ la jaxasee kenn nga sa yoon jàpp sa fulaak sa fayda téye sa bopp sérieux parce que sama papa Bécaye dafa ma wax lu am solo si làmb. Mm-hmm. dama bëre mu ne ma booy bi wax naa ko si ñaareel ku ko jàppale si làmb dina dem maanaam loolu loolu ah, ko def son. maa ngi koy gis démb. waaw son laa ko def su ma def entraînement dama koy déglu ba pare chaque jour mais nekkul lu may ndamoo quoi mais damay gën a góorgóorlu rek gën a yokk jom xam ne suñu borom moo bindee noonu ma mel noonu kon lu des la ma koy mooy ful la jom yee te maa ngi ci maa ngi si entraînement maa ngi koy teg ci yoon. Hmm. su ma ñëwee ci sa idole muy Boy Niang ak Tapha ñu gis na mu nekk combat boo xam te ni combat jànk la bu neex Tapha Tine duggoon ki nga xamante ni nii mooy uh, Ama Baldé daan ko mu dellu si waat duggaat ci Boy Niang lan nga wax ci combat boobu. waaw combat ku jàpp yaa mun sa moom yaa nax sa bopp. Boy Niang day liggéey koo xam xam xam na ko su amee combat da ko jël en sérieux Tapha Tine tam champion la mbër la mais ñu ngi ñaan tam boo ñaa yàlla amee ko ndam lu sedd guy bu gaaw. mais est-ce que dina yomb ndax Tapha Tine ku ko xam ku ne xam na xeexkat la. non du yomb Tapha Tine kenn du yomb xam nga boo ñaa dañu ndox du bàyyi yoonam lu mu mën doon bëree na koy def ba yàlla may ko si ndam Tapha Tine tam xam moom moo xam lu muy def lu mu dafa bëre ba ñëw. mais ñun daal ñu ngi ñaan Boy Niang su ma ñëwee ci Guédiawaye Balla Gaye ak Boy Niang ñu gis nga dëkk Guédiawaye Boy Niang nekk sa idole. Mm-hmm. lan nga ma wax ci boobu combat. non loolu dara Balla Gaye dañuy dégg téléphone man ak moom Balla Gaye ba ne ma sama combat bi woo na ma ñaanal ma ndam sama jour sama jour signature bi wasat na direct ñaan ma ndam loolu seen làmb la ñoom ñaar fay ko leen ci ay millions man maa ngi xool lu ma def ba nekk niveau bu ñu nekk kon boobu da nga ciy nër. non làmb seen làmb la ñoom ay champion lañ ñu ngi bëre seen biir xam man booy bu ndaw laa maa ngi sama carrière am na loo xamante ni ay détails la quoi. ñaa daal daa jënd galaas suñu tool nii. Ah, jënd ma galaas sax <laughs> mais boo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tàggatoo ba beneen. kàddu yu mujj damay bëggee sama gars yi rek sama jënd kii war man jënd ma sama doom day xaar bébé xam nga sama sama sama grand suma lépp la day sonn si man xam nga ñii nii seen cent franc yi ma jox seen téeméer ak jibi mi xam nga loolu moom la gën a yokk jom seen deux ans yi wóor na borom daaru xew ma ko benn yoon ma ne ñoom ñu defandoo lépp depuis xale yi booy yi ñoo ànd sama bu jigéen ñoo maase. papa mi ngi gis nii waaw na man booy bu ndaw laa yaa ngi dégg. xam nga dama leen di sant di sant waa mbaar bi mafia bi yëpp ñoom lant ñoom moxos si biir gars yi làmp xam nga ñoom galas waa mbaar bi fii su may bëre fii ñëpp ñoom ñëpp kenn du toog xam nga sant dundu macha xam nga di ko Papa Boy Djiné na ko làmb nii la mu gën a defaruwaat rek ànd ay ay mbokkam ñëwaat ama seen tegal na six défaites nekk na a des arènes xam nga loolu daal mais nag dama bëgg a sant ñi nga xamante ni tam xam nga ñooy jàpp si combat bi. xam nga maa ngi sant maam góor. lu mu xat-xat. maam góor maa ngi koy sant borom Morog sama la xam nga Amel Bantamba moo may jor entraînement Pikine maa koy nuyu bu baax baax a baax a baax Laay Balde Pikine maa ngi koy nuyu bu baax Laay Balde xam gis naa convoi bi ñoom Seck xam nga gars yi mécaniciens yi maa ngi leen nuyu foofu bu baax Assane bu dëkk Gunaas fii nii watu euh, à pharmacie bi maa ngi koy nuyu quoi sama benn booy bu sonn si man la xam nga ah sama benn boobu bu nekk Fadia maa ngi koy nuyu bu baax du ma turam nag quoi sama booy bu cool la ah, Philippe damay gërëm sama gars yi ngay ñàngal de. damay gërëm gars yi jël sa temps. xam nga ñoo ngi toog la seeraat. ak grand Ibba maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Assane Golbal Tex sama doomu ndey maa ngi koy gërëm bu baax mooy loolu. Ibou Thiam borom Paris maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax suma doomu ndey la suma lépp xam nga seexu benn temps maa ngi koy nuyu bu baax suma grand la day sonn ci man xam nga sama combat bi woo na ma conseillé ma na dama defal nànk xam seex Cheikh Fall Loso sama benn waay buy sonn si man la moom tam moom tam téyër la quoi Cheikh Fall maa ngi koy bu baax a baax Marème Thiam su ma mag combat bi na ma trois cent mille Marème ñing maa ngi koy bu baax a baax a baax euh, maa ngi nuyu tam yow grand Ouz grand bu baax borom euh, Fass Mbao ku nekk lamb xam nga Naar maa ngi koy bu baax sama caméraman jël ma fii en direct yaa ngi dégg yaa ngi feeñ de Ablaye Naar bu baax a baax Cheikh Sylla bëgg démb la ma woo ma ñëw ba këram may ma deux cent mille paquet dama xool ci yére ma dem ba ma ma dem ba Dakar jënd si ay équipement ay dàll ak lépp na ma loolu loolu sama événement waaw. xotti woo ci bassin. xotti ma ci bassin deux cent mille la ma jox ma jënd lépp ay yére ay équipement ay ay pàcc ay dàll xam nga ay baa man loolu mooy sama événement xam Aziz maa ngi koy nuyu itam Aziz. xam nga sama benn grand bu baax la maa ngi koy bëggee bu baax a baax. Zal borom euh, borom États-Unis maa ngi koy bu baax a baax a baax am na benn nit boo xamante ni day sonn si man nee na ma ñaaw bu ma gërëm mais bu déggee lii moom dina xam boppam nag maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw dama jël sama lépp teg ko ci moom di ko naanal jàmm bu baax xam nga mbay kase borom turki maa ngi koy bu baax. bu dee rek sama benn gars yi baax a baax a baax roon ënd maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi nuyu Fall Pape Fall xam nga maa ngi bëggee gaa yëpp di bëggee sama doomu ndey yi nekk fii nii yëpp. mais wax bu jeexee jeex na. non il faut jàpp si parce que xam nga ñun dina lañ ci am mooy loolu xam nga yi ñu sonn si ñun quoi di wax tam xam nga waa wasaare tam maa ngi nuyu suivre bu baax gis naa liggéey bu def si làmb. laam boo am ngeen dem xewaleen mbër bu ndaw xewaleen mbër bu mag lu nit lu nit xewalee ngeen ñëw si seen liggéey rafet na yàlla télé bu nekk tam ay télé télé tele di la bëggee xam nga di bëggee jëlee caméraman bi nga xamante ni moom may waax bëgg ma noppi di wax jàmm si yéen dal jàmm bu jeexee rek jeex na amatul. waaw wii moo tam maa ngi nuyu itam ah, Abdou Inte Seize Abdou sama boy bu ma bu baax baax a baax a baax ma ma silim too bi ma fi waa parcelle ñoom na fi maa ngi bëggee foofu gars yi dara du xew. gis ngeen ni lañ koy defee ci Wassare bu tey ñaa bu ndaw lañ seet si woon waaye gis nga mbër moom foo ko tàllalee mi ko mu ne maa ngi diw. waaye nag ci la bokk ndax nit bu lay jàppalee da ciy baax waaw góor moom euh, du yokk coono sax waaye dafa yo dafa yokk njàmbaar ba tax na nag tey moo leen seet si woon waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci kàddu xanaa dina jox dig daje beneen yoon ci wasaare làmb kàggu jëf.